monsieur Téliko je rappelle que ba ñuy jugé Khalifa Sall ba condamné Khalifa Sall moi j'ai eu une posture j'ai considéré qu'on a été agressé mais monsieur Téliko fait partie de ces magistrats qui ont considéré que je devais être jugé moi tout ce que j'ai dit je l'ai dit à ma façon la magistrature sénégalaise la justice sénégalaise est plus que malade elle est agonisante alors maintenant ñoom la seen biir nañu xool nu ñuy lijjanti seen yëf wante lu am ba am tey mooy les Sénégalais ne leur font plus confiance. la justice. non c'est une corporation où on sent on dirait que les gens sont là pour défendre leurs intérêts personnels. dans l'affaire Tilico je vous pose la question. où se trouve le problème. à la justice et puis yow ngay dem di porter ci mais euh, depuis que je porte plainte parce que j'ai pas le droit de me faire justice mais la plupart des dossiers où je suis allé au tribunal j'ai pas trop d'espoir. kon da ngay jox sa xaalis bi avocat bi comme ça. ah mais lan ngay def soo demulee parce que xamul tax mu neex des fois day ay dossiers yu nga xam ne ni dangay xam ne ni que fii ci dossier bi amul prescription doo introduire léegi dossier bi amul prescription donc doo am ndam parce que àndoo ak ñoom wante ñoom bés lañ fi jóge te normalement président Macky Sall lu ko fi dese su ma jumulee ñu ngi lan ñu ngi deux mille ñaata vingt. waaw ko fi dese mooy ñeenti at wala Umar du noonu. waaw kon moom su fi jógee y a des dossiers qui sont actuellement au tribunal et ces dossiers concernent des détournements de deniers publics en matière de, de détournement de deniers publics y a pas de prescription. absolument bés bu ñu fi jógee rek on réactive. c'est tout. c'est important alors oui Omar Faye yaa ngi doon bëgg intervenir. Non, euh, non, tout à l'heure par rapport à l'affaire Télico de, quoi.